de Pape Alé Niang manu militari yi un poignard au cœur de la démocratie. Mhm. jàpp bi ñu ko jàpp ci mbedd mi téye ko téye ko tëngam ko jël ko yóbbu ko bokkul ci démocratie. Mhm. du sax ñàkk bokk di démocratie mais jël paaka la jàmm ko ci xolu démocratie c'est-à-dire à chaque fois nga def acte bu mel noonu ci démocratie jàppal ne démocratie li ko dese pour mu dee barewul. Mhm. parce que paaka ci paaka xajul ci xol. mu mel ni euh, tey démocratie boobu te pourtant président Macky dafa am lu mu waxoon xamle woon ne ci nguuram du ñu dégg ne taskatu xibaar teg nañ ko loxo te mi ngi ko waxee woon ci biti réew tey tubaab yi ñu ngi jëlaat loolu di ko tegaat au cœur du débat. waaw man loolu du ma ci sori laaj nañ ma ko plusieurs fois dama ci lu tontu bu fekkee ne da nga bëgg a ñëw pour ñu waxtaanee. Mhm. li nga xam ne Macky Sall waxoon na ko te wax le contraire fi jógee. Mhm. tam xarit ah, du ma ci yow xam nga ko man xam naa ko sénégalais yi xam na ko li ngeen di junj yëpp di ko wax dama ne. li ma ci yem du ma ci commenter constitution du ma ci wax loi dama ne Macky Sall li mu waxoon ci troisième mandat bu fekkee ne dindi na ko naka lay jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñu ngi ci àllaaxira te mu waxoon ko ak ñoom xalif généraux yi. Mm-hmm. alami. Mm-hmm. sëñ Baara. sëñ Sidi Mokhtar. Mhm. sëriñ Mountakha. Mhm. sëriñ Mbaye si Mansour. Mhm. li mu wax ak Sarkozy. wax ko ak François Hollande wax ko ak euh, Obama wax ko ak adduna bi yëpp ba ñëw ci buntu armée yi wax leen ne ñaari mandat lay def du ma ñetteel amatul wax. toog xaar rek. ñaan yàlla gudd fan. te xam ne bët dina si. Mhm. bët dina si bi ci ponk troisième mandat boobu dañ koy dugg au cours euh, du euh, débat euh, mais tey li nga xamante ne moo tax ñu teg loxo ki nga xamante ne moo di Pape dañu am ay termes yoo xamante ne dañ koy faral di utiliser mooy secret défense devoir de réserve est-ce que du ces termes là tey jii moom moo tënk li nga xamante ne moo di liberté. moo di moo tënk liberté. xam nga liberté mooy nga am sañ-sañ def li la neex. Mhm. mais liberté sa sañ-sañ def la neex taxul nga fekk nit mu gaare sa buntu kër nga saaga ko dóor ko taxul nit jël sa alal sax for ko wala mu sàcc la nga rey ko liberté dañ koy encadrer mhm. du nit lu mu sañ def def mhm. ku nekk am na liberté mais doo demoon ba place de l'indépendance yor sa satellite di sangu ñu jàpp jàppale dóor la mhm. donc liberté dafa am encadrement encadrement boobu nag dañ koy def ci li nga xam ne dafay permettre ku nekk ci ñun am sa liberté am sa jàmm yaram. Mm-hmm. mais bu kenn rek amee liberté ci ñeneen ñi amuñu ko du sotti bu ñëpp amee liberté ñu xañ ko xen du sotti. Mm-hmm. donc liberté am na te liberté yëpp la ñuy encadré. Mm-hmm. li nga bëgg wax danga nga bëgg wax ne am na secret am na confidentiel. am na urgent. am na très urgent am na très confidentiel am na secret d'état am na secret militaire am na secret défense mhm. yàlla sax noonu la bindee àddunaan mhm. du ku mu neex nga dem fu la neex du ku mu neex li mu ñu sante sax nga xam ne loolu la bëgg ci ñu julli woor asaka dem màkk am na yoo xam ne yi am na yu mu teree nit mhm. nee na jigéen ñi boo leen tolloo fenn bu leen ñëw ci jàkk ji bu leen dugg ci aramu kaaba yi moonte moom loolu da koy atte ci àdduna ni mu dundee donc am na loo xam ne dañ koy nëbb kenn du ko wax am naa loo xam ne du ñu ko waxtaane fu mbooloo nekk am na loo xam ne buñ koy waxtaanee dañuy tëju ba ci seen kër yi yenn saa yi nga wax ak sa doom bu jigéen lu say doom du góor du fekke mm-hmm. wante bon loolu dafa am loolu mooy ni ñu encadrer liberté mm-hmm. donc loolu bu ko yoon tëree rek lu yoon tëree rek aw ci yoon moo gën mais yenn sa yi tey jii suñu demee bëgg ci opposé wu tey ji est-ce que loolu du indi yenn nébuleuses yi duñ ko faral di fësal. waaw yow mën nga ñëw sama kër tey tey tey yaa ngi fi may garder benn secret man nga ñëw gis ko suma kër est-ce que daf la may boo génnee nga wax ko. non bu fekkee ne day laal askan. même buy laal askan wi même buy laal askan wi lan mooy laal askan. bu fekkee ne luubal goo xamante ne dafa aaju ci kopparu askan ak ngëneelu askan ndax loolu dañ ko war a nëbb noppi waale ko ci turu secret défense wala devoir de réserve bu ñu bu ñu boolee lu nekk te waxtaanuñu ko wala ku nekk xamuñu lu nekk dañ koy dal di jaxase mhm. te jaxase baaxul bu fekkee ne xaalis la bu ñu sàcc wala ñuy luubal xaalis ci fi nga nekk lu nekk ak am na lu ñuy wax code de transparence laa lay wax xam nga dëgg bu njëkk ba ñu doon wax naan droit de réserve dossier bi nga yor muy dossier administration moom ko nga ciy liggéey amoo droit wax ci ci biti mooy dañ la tënk ci dossier bi mm. mais léegi dafa changé depuis 2012 c' est parce que ñun journaliste en particulier ak ñi ñuy intérêt politique yi dañu dul sori ci seen xalaat depuis 2012 dafa am lu bees waxuñu ne droit de réserve jeex na waxuñu loolu de mm-hmm. mais dañuy indi loi wax dañuy ne ci état tout agent de l'état loolu la code de transparence wax waxul sax fonctionnaire parce que fonctionnaire mooy ki nga xam ne dafa bokk ci fonction publique ñu formé ko mooy inspecteur des impôts inspecteur des heures contrôleur ainsi de dafa ne tout agent de l'état maanaam jardinier bi nekk ci ministère des finances mhm. ak chauffeur bi nga xam ne agent de l'état la ñoom ci biir foofu am na doxalin boo xam ne bi bu amee ci ñuy jël nit di jël xaalis alalu réew mi du ko sànq mu ne bu boobaa moom na ko wax sinon dina jàll tribunal xanaa ngoonte boon léegi jóge nañ ci de réserve ñu ngi seex boole ñu non seulement ñu ngi ci boole mais ñu ngi jëm ci sosal mhm. te bu ñu jógee war a jaawale boo droit de réserve ak boole ak sosal dafay nekk lu xaw a xat mhm. pour nga fecc moo tax bu boobaa da teey tey tey bu metti mhm. tey boo xam ne moo lay permettre nga xam lu xew. Mhm. mais boo xamul lu sew wax ji juum da ngay juum. da ngay juum mhm. euh, kon dafa doon loo xam ne dañ ko war a encadrer euh, tey jii am na ñu doon wax ay proposition sax jagleel ko pencum ndaw réew ma ci terme yooyu ñu mën koo encadrer ba nga xamante ne yenn topp yi dootu ci amati ci wàllu yoon. mais tey jii kon euh, ñi nga xamante ne dañ leen tuddee ay journalistes d'investigation les lanceurs d'alerte tey jii kon ñooñu amuñu benn couverture tey jii. lan. ñi nga xam ne dañuy gis luy xew lor askan ñu génne ko siwal ko mu musóor ak ni ñuy wax cey moom la ii benn la rek xew-xew kàddu la lancer d'alerte ci fan suñu la suñu droit positif fan la ñuy bind lancer d'alerte fan xew-xew bu ñu xewal la rek ku nekk tudde bopp sa lancer d'alerte mm-hmm. xew-xew boobu moo indi yéen journalistes yi fi ngeen di liggéey bokkatu leen ci ñiy joxe information léegi ay famille ñoo koy joxe ay nit ñoo koy joxe ñoo xam ne bokkuñu ci métier bi. ah bon ah oui waaw jàng ko gën a xam. xam nga xam nga ne l'information est réservée aux journalistes mais chroniqueur bu nekkul euh, euh, animateur bokk ci kuy théâtre bokk ci mais loolu lañ jaxase rajo bi ba nga xam ne léegi rajo bi journaliste bi képp ku doon liggéey fenn ñu indi la fi heureusement que am na changement ci code barre da tegoon sa bopp journaliste. Mm-hmm. dawalkati saret bi ñëw démb ngeen jël ko muy jaay tàngana ci biir di leen jox ci restaurant bi dañ ne mu ngi ci biir entreprise journaliste loolu nga jàngoon mais loolu dañ ne léegi dafa am moom information bi donc ay lanceur d'alerte yëpp am na lu war a baax ci réew mi la mais lanceur d'alerte waxul ne taxul benn nit xëy suba ne réew mi ñëpp ay sàcc lañu ku nekk ñu ne sàcc nga ku nekk ñu ne fenkat nga ku nekk ñu ne góor jigéen nga ku nekk ngeen ñu ne càgg nit boo koy jiiñ dara da ngay am preuve yu ne mu ngi si surtout la bu dee problème mu jigéen ñi ak problème li ñuy wax te te diine am fu mu teg ci nga wax ne diw dafay njaaloo donc par conséquent lu ci nekk dafa am yoon bu ñu ko tegul ci yoon du sotti. mais kon tey lanceur d'alerte bi toog tey génne woon coowal euh, Petro-Tim génne coowal li nga xamante ne moo di quarante cinq euh, milliards yu euh, ministère de l'environnement yi ñooñu. ñi ngi def liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci lanceur d'alerte mais encore problème bu Pape Alé foofu da yàkkamti mais problème bu Pape Alé mooy dañ ko fekk ci mbedd yi muy defar oto ñu jël ko yóbbu. waaw ba boobu ba fi ñu toll nii mu ngi ci situation mu présomption d'innocence. Mhm. man ak yow ak moom ñoo yem. Mhm. ca façon bañ ko jëlee laa ne nit du ko def nit waxatuma la ak journaliste. Mhm. mais tey jéggi naa foofu. moo di ne tey jii. xam ne liñ koy toppee ñun dégg nañ ko présomption d'innocence boobu ñu ngi ciy xaarandi ba léegi amagul lu firndewu ndax jàpp nit ba pare dem di uti ay preuve la ñu toll mais tey ñi nga xamante ne ñoo génnee luubal boobu bokk na ci li tax tey ji singale gi am mooy euh, ñi génnee euh, wàllu quarante cinq milliards contrat armement bi ci environnement mooy waa ay lanceur d' alerte lañu ay taskatu xibaar ah, yoo xam ne ci wàllu investigation la ñuy liggéey yaa ngi ne Pape Alé ni ma lanceur d' alerte. man Pape Alé moom journaliste d' la waaw. xam nga même journaliste d' investigation. Mhm. am na mais da nga koy tuddee a tur rek. mooy. waaw ah, journaliste sportif am na journaliste euh, buy def politique am na desk politique am na. Mhm. desk sport am na desk culture am na mais desk inga am ngeen ko yéen kooku chef bi foofu ci Walfadjri. desk la. d' investigation. déedéet amagul waaw ah, mu ngi noonu ay tur yu bees yoo leen gën a ay tur yooyu lañ tamit tamit journaliste sportif am na. mais am ay couleurs su euh, ay kuréel sur le plan international. mais waxuma sur le plan international man plan international taxul may wax parce que plan international li ñuy sañ fii kenn sañu ko États-Unis États-Unis nit sañul ci même dans le reportage nation américaine moo la permettre nga tiiñ sa caméra gis soldaaru américain bu daanu nga foto ko. bokkuñu. Mhm. mënuloo compenser boobu at nañu wax suñu dëkk suñu dëkk laa ne ba man gisuguma rédaction yi mu fi bari ak bi journal amee fii ba léegi fu ñu ne lii kii mooy responsable disque investiga desk investigation am na nag. Mhm. dafa baax sax ci démocratie. Mhm. mais dama ne bu ñu ko teg fu mu agul parce que man gis naa fi ay journalistes d'investigation ñu leen tudde ñu wax nit ne dafa sàcc nangam. je reviens sur la question sur les 400 millions de francs de Iba Gueye ngeen génn téere bi yéen ñëpp ngeen ànd ak moom di ci wax ba ñu demee ba seet ko Iba Gueye fekkewu ko yëgul dem dul te mu ngi àlaxira bàyyi ay doom te la même chose def na ko plusieurs fois man mii def na ma ko mais jusqu'à quand mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même non, sac. Je, ma kenn dans le même sac moom laa déggoon mu ne journaliste d'investigation la xaw ma léegi ba léegi moom la am déet. waaw ngoonte moom lu ñuy am nekk la di ko dindi. waa mais tey jii attends uh-huh. kii moom ngeen wax ne moom la man waxuma ci loolu dama ne journaliste ni sénégale citoyen rek kenn du ko fekk ci mbedd bu su dimanche. di ko pamti pamti. nga ko di pamti pamti ko jël ko brutaliser ko dugal ko ci oto. Mhm. loolu la ñu war a jëkk xeex mu deñ. Mhm. loolu ku ko def ak ku deful ku fekkee ak ku fekkul moo warul am. Mhm. donc loolu mooy bataille bi. loolu mooy bataille bi mais tey jii ndax mën nañoo nangu tey jii yaa ngi wax journaliste patriotisme bi mu war a am ba yenn yi li xew États-Unis ni seen taskatu xibaar di doxalee ci wàllu patriotisme mais tey ñun Sénégal dañoo nangu. journaliste yu bawoo biti réew ñëw lëj mba suñuy mbir interne ba pare siwal ko sur la place publique ah, te dara du ko ci fekk mais yéen foo leen nekkoon yéen a matul yéen yéen a am yéen yéen ay seet seen bopp pourquoi loolu yéen ngeen fi yewoo di fi fanaan nit jéegoy fële ñëw loolu moo xewoon aussi ci problème mu euh, comment il s'appelle affaire ministère de de comment il s'appelle de l'environnement bi ci loolu yëpp ci biti la ñuy parce que boobu temps bi ñun ñuy jël paas di ñëw di fay hôtel di ñëw di enquête si di ñëw di enquête sur le danger bi nekk diggante Thiaroye ak traversé Thiaroye avec la SAR mais yéen foo leen nekkoon. ñun dañuy wax mais du am impact ndax loolu yëpp. ngay wax ni journaliste yu Sénégal bind nañ ci du question du am impact yéen li leen war mooy ngeen wax yéen yéen ak ilimaan bi yéen a yem. ajuma da ngeen di xutba wax bu ñu defee ngeen wax bu ñu leen toppee ngeen wax. mais dëkk bi neexatula la waxee père. waaw moo taxoon comme dëkk bi neexatu la yow nangoo yow neexatu la laaj neexatu la wax c'était pas la peine ngay ñëw c'est aussi simple que ça il faut ñu assumer ñëw ci beneen point bi muy aju tey ci assemblée nationale nga xamante ne depuis alxames la ñu commencé li nga xamante ne moo di session budgétaire bi fan yëpp maa ngi lay dégg ay information yoo xamante ne yaa ngi koy génnee wax ne réglement intérieur assemblée nationale tey jii daf dañ ko soppar ñi ci anam goo xam te ne jaarul yoon ci lan nga sukkandiku pour wax ko